weeru koor bi li ñu seetlu mooy que li ñu daan gis ci ñi nga xam dañuy ñëw di maye deret day wàññeeku lool euh, te xam ngeen ni euh, ñi nga xam ne ñoom dañoo feebar ñoom ñoom du ñu am du ñu xaar euh, dañoo soxla deret boobu pour dund centre de transfusion sanguine donc dina nekk fii ci CICES le mercredi 30 mars ak le jeudi 31 mars pour permettre ñëpp ñi nga xam ni bëgg nañ ko ñu ñëw maye deret Euh, maa ngi leen di fàttaliku ne rek ni pour maye deret euh, jërul ngeen di euh, woor jërul ngeen di jeûner mooy que mun ngeen doon mun ngeen ndékki mun ngeen añ du leen tee dem maye ji deret donc rendez-vous mercredi 30 ak jeudi 31 mars fii ci CICES may leen ay may leen seen deret pour mun a aar dund malaat yi nga xam ne ñu ngi si hôpitaux yi jërëjëf